France change na de waaw France Macron da doon dëgër bopp rek na li moom du bu gars yi di génn muy ra muy jàpp gars yi di raafal di téye ci kaso bi tëj ba mu demee ba gisul mu xam delluwaat na ci de <coughs> waaw dañ naan borom fital du xeex ak borom borom kii jaasi waaye nag <coughs> borom jaasi gi de mujj naa wàcc de ah. borom fital mujj naa wàcc de Macron wàcc na ñu dem déglu lu ko wàcce Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. bien? Ça Je faisais le petit malin. Oui, je croyais que les gens parlent comme ça, ils veulent pas déborder. Mais il y a beaucoup d'arrestations, la France est vraiment perturbée. Maintenant, je suis obligé de négocier. il de négocier. Il n'y a pas de problème, les gilets jaunes ont vraiment euh, réussi leur grève. je suis vraiment euh, obligé de parler avec eux. dëgër bopp baaxul gis nga dëgër bopp ak woole mooy indi toujours bopp bu toj ak bopp bu tooy nit bul dëgër bopp man lii ma dengu nii maa ngi wax président yi nekk ci àdduna bi yépp ñu bañ a dëgër bopp ndax dëgër bopp ak woole toujours gàcce ngay am ndax sa bopp bi bu fekkee da ne dafa dëgër rek kenn mënu ko tooyal ba mu tooy dangay xëy rek mu xar ñaari parti ah. man dama xeeboon gilet jaune yi seen affaire yi ñuy def ma ne ñii dañuy tàppale rek bàyyi leen ma jàpp téeméer ñu gën a rakkaaju ma jàppaat téeméer ñu gën a rakkaaju ma jàppaat yeneen téeméer ñu gën a jommi gën a rakkaaju te ñoom li ñuy laaj affaire augmentation de salaire la ñu wàññi euh, yenn taxi yi yu bëri ma ne eh, duma ko nangu di defanteeg ñoom yaakaar ne man <laughs> man ma wowlee ndekete ñoo ma gën a wowlee waaw wallaay ñoo ma gën a wowlee dem na sa ba affaire bi commencé déborder moo tax je donne un conseil à tous les présidents yu nekk ci àdduna bi rawatina africain yi li dal France mun na leen dalan parce que nit bu fekkee ne ay nit ñoo la fal ay nit dem ba gis ne yow neexatul li ngay doxalee neexu leen da ngay waxtaan si ñoom sinon rek dina am lu la bett parce que lii tamit gàcce la ci man a def benn mandat rek nar a wàcc loolu laa xalaat ma ne dara ko waaw moo tax woowle baaxul te lii yëpp woowle ak dëgërle ak tànqamlu moom moo ko indil moo tax boo nekkee président war nga seet ñi la entouré parce que benn nopp baaxul bu bii fàttee rek benn bi ngay déggee te bii dafa fàttoon waaye léegi loqoti naa ko ba amatul lu ko faqarti moo taxit àdduna nii la kenn ko nekk mun na la dala ah. parce que syndicaliste yi lu ñuy kaas na ngeen koy jël nga naxanteeg ñoom expérience bi ma ci am mooy nit bu waxee dara na ko sàmm te wax waxet baaxul man yàlla baax na wax waxutuma dama dig diggee <laughs> dig diggee laa defoon dama dig ba pare war ko def digaat leneen defuma ko ñu fàttale ma sama digg sama diggee waaw mais man wax loolu la ñun tamit président yi dañu war change changer jikko bu ñuy ut dara dañuy diggee rek bu ñu toogee du ñu def moo tax nit ko gis ci àdduna looy diggee na nga ko mën loo dul def bul ko wax loo mu métti métti na ko muñ waaye bëgg dara wax loo xam ne boo ko amee doo ko def mooy tax ngay wowlee. diggee bor la ci jëriñu loolu rek la le secteur. Dige bor la moo ni dige bor la fan la yoon bi dige bor la fii la Macaron fii la Macaron fii yoon la Macaron fii yoon la Macaron fii yoon la fii yoon la